ñu ngi am mbégte dalal Abdoulaye Banguer mu bokk ci directoire bu PLD muy parti des libéraux et démocrates ànd suqali Oumar Sarr jiite ko euh, sëñ bi Nguer ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. Euh, soxna si Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu tamit sa sa auditeurs yi alors waxtaan bi dañ koy tàmbalee ak seen parti bi bi ngeen ko taxawalee yàggul wante ay jafe-jafe tàmbali na si xeeñ ndax Babacar Gaye bokk si ñi nga xam ne ñoo àndoon ak président euh, seen président Oumar Sarr génn PDS taxawul parti bi moom génn na si wax euh, meram lan moo xew si biir PLD. Euh, waaw pour man de dara xewul. man mi Abdoulaye Ndiaye nekk ci directoire bi membre fondateur. nekk ci douze premiers yi daan dox di créer parti bi bon dix douze premiers yi sax à la limite bon y avait pas Babacar Gaye hein hmm. non y avait pas Babacar Gaye les douze premiers là yu ñu ko taxaw pour di créer parti y avait pas Babacar mais bon être que boobu mi ngi ci yoon bi hmm. mais c'est pas important dans un parti politique ñun ñëpp ñoo koy créer ndoo ñu demandoo ba mu nekk une assemblée générale et il est membre fondateur tout comme moi tout comme tout le monde mais quand nañ ci biir PDS ensemble nekk suñu pas ainsi de suite vraiment respect boobu moo mais maintenant parti politique y a pas problème day am ñuy dem am ñuy ñëw. waaye parti boo xam ne juddoogul sax commencé am ay départ. mais parti boo xam ne juddoogul sax ton ñëw tamit. Ah. parce que actuellement nii le parti la wala ñun ñaari at la am ñaari at ñu dugg judd ci contexte Covid ñuy dundu ci Covid contexte Covid ba nga xam mënoo def déplacement mais on a vécu euh, avec sax et on a fait fait vivre le parti avec ça ñu dem participer élection locale. avec des centaines ñu am ay centaines de conseils nonobstant la coalition Benno Bokk Yaakaar centaines de conseils yu nekk sur la bannière du PLD. des des des centaines vraiment avec euh, déploiement parti bi au niveau national nu mu demee nii ñun de waa PD ñun on quand est satisfait de ça. maintenant bon entre nous y en a y en a la ko nëbb am na ñu dem mais ñu leen ëpp foofu ñëw nañu. ñu dem lu leen yóbbu. mais ça c'est ban parti la amul. gisatuñ seen bopp si ni parti bi doxee. c'est tout à fait normal dans les partis politiques parti politique yëpp la amul le PLD n'en fera pas exception voilà da nga gis kii dem ni bane instant dem ainsi de suite mais quand même le plus important c'est la vie du parti ndax parti baa ngi dox waaw wala déet ahankay parti bi mi ngi dox ndaxte kat ñi ngi waxtaan suñu biir ñi ngi diisoo te gis na ni ñu parti bi mi ngi màgg am na force de xamante ne mi ngi nelaw loolu la ñu bëgg sax gën ko yee moo waral ñuy def conférence nationale samedi bii di bii di bii di bii di bii di ñëw maintenant li des des nag moom c'est des c'est dans la vie naturelle des partis politiques quoi y pas problème. dafa mel ni gars yi dañu merci Oumar Sarr seen président parti ndax nee nañu affaire yi dafa mel ni daal si moom rek la féetee. moo nekkoon si gouvernement bi moo nekkaat si bii xëy na daal euh, ñeneen ñi gisuñu seen bopp si yëf yi est-ce que du loolu mooy seen problème. et eh bon euh, ñun nag. nekkuñu si ay gis sa bopp yëf yeeg gis nañu nekkul si yooyu. Mm. ñun Sénégal la ñuy servir ba ñuy créer parti bi dañu am engagement pour servir ce pays là Oumar Sarr reste la personne morale du parti des libéro et démocrates loolu moom ñun ñëpp kenn werante wu ko si doxuñu si loolu mooy suñu kilifa ñun ñëpp yàlla moo dogal loolu te ñun ñëpp ñoo ko fal. Mm-hmm. lors du euh, quand même suñu congrès bi ñu créer suñu parti def ko ko te wax dëgg yàlla boobu léegi euh, parti bi ni muy doxee. ni muy doxee di ko demee ak parti bi ni mu avancé au niveau territorial maanaam di commencé di law biir Sénégal te amagul sax euh, ñaari at yu mat bu leen fàtte ne Covid bi jaar na fi yeneen difficulté yu métti jaar na fi terewul parti bi dem na élection locale am ay centaine de conseils municipaux laa wax centaine de conseils municipaux parti yi ko def peut-être depuis l'existence du Sénégal bariwuñu depuis loolu ñu ñëw participer élection locale yi élection téri élection législative yi plutôt euh, en façon honorable dans le cadre Bokk Yaakaar donc bu ñu demee bu dund loolu war na ñu taxaw seetlu ndax am na ay enjeux yu ñëw suñu kanam ñu nit ñu defaraat toogaay yi gën a massifier parti bi gën ko defaraat mais loolu yëpp vraiment moo tax ñu waral euh, ñu wootee conférence nationale bu pour euh, quand samedi 29 bi. voilà. sa conférence bi ñor na la lool waaye dinañ wax si yeneen soog see ñëw. Euh, boo nee euh, sénégalais yi ñoo leen ñor te dégguñu leen si question yi nga xam ne moom la sénégalais yi di jànkoonteel euh, lu mel ni njëgu dund gu cher gi ak yeneen jafe-jafe yu fi nekk dafay jaaxal nit ñi dégguñu seen secrétaire général dégguñu kenn si PLD est-ce que vraiment sénégalais yi ñor nañ leen ak li ñuy dund. ah oui nous quand même je peux dire que nous sommes dans le cadre quand wax waxu dund bu cher ak i maasam ça interpelle et dans ce gouvernement en tant que ministre quand même des mines et de la géologie bu ci nekkee y a ce qu'on appelle secrétariat exécutif quand même euh, de Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni maître Sall Amadou Sall di vice-président ci parti bi di suñu doyen moom suñu xalaat ak suñu mëbët li ñu xalaat ci wàllu dundinu Sénégal yépp fa lañ koy def ngeen di gis communiqué wu Benno Bokk Yaakaar donc ñun à travers les communiqués du gouvernement à travers les communiqués de benn Bokk Yaakaar foofu kaddu PLD mi ngi ci et d'ailleurs même dans les débats à la télé et dans les médias vous waaye les représentants quand même du PLD qui vont sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar di défendre quand même les Sénégalais di défendre le gouvernement et di défendre l'État du Sénégal ainsi le président Macky Sall voilà on, on est dans une dynamique de coalition c'est la solidarité bu kenn bu coalition bu waxee rek ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko wax voilà. boo ne échéance future yi ngeen di xalaat ndax élection présidentielle ci la bokk. waaw entre autres ci la bokk ak yeneen. da ngeen nar a am candidat wala bennoo ngeen di àndal. oh am candidat xam nga par principe am candidat loolu congrès moo koy wax. par principe loolu ñuy waxee ne principe quoi ça c'est ça c'est le principe quoi moo koy wax da nga am candidat ni ngeen loolu congrès wu parti moo koy wax mais mën naa la jox suma xalaat daal daanaka euh, boo xoolee ñun ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar la ñu ne. et nous comptons quand même marquer notre empreinte dans et que Sénégal bu ko xoolee bu baax lu ci ëpp solo mooy Sénégal contexte bi ñu nekk nii contexte su crise mondiale war ngeen xam ni inflation bi métti na trop ci àddina bi. nag bokk na ci réew yi nga xamante ni inflation moo gën a ndaw ci àddina bi. lu muy métti métti Sénégal a gën a neexi dundin ci réew mi ci ci ci àddina bi bokk na ci réew yi gën a neexi dundin laa la wax de. ci àddina bi bien que metti na nag boo demee Europe di nga si xam dara ñoom moom ñoom mar day taal ah donc yooyu yëpp des efforts la ak ngeen gis crise yi amee yi insécurité bi am bi si sous région bi donc dem na ba Sénégal ñun sàmm suñu réew moo war a dépasser quand même euh, préférence bu parti politique yi mm. et ça nous comptons quand même le faire dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar. defee ko naka. par de solidarité que nous pensons que parce qu'on est à 15 mois quand même de la présidentielle que nous travaillons dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar gën par, le biais de notre parti le parti des libéraux à partir de là bon mën nañu engagé présidentielle mais na là, les principes directeurs, quand même, seront définis par le congrès à venir courant 2000, 2000 2023. Mais quand même, il faut qu'on soit logique avec soi-même, avec soi-même, d'ailleurs. On est dans la coalition et nous pensons que le pays, le pays est quand même plus ou moins bien géré, malgré quand même les crises à répétition au niveau mondial qui frappent tous les pays du monde. Le Sénégal tient bon. surtout exploitation euh, pétrolière ak gazière bii ñëw bi donc loolu ñun dañoo war a aar suñu réew sàmm suñu réew et nous war nañu ko mën def dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar. d'accord Benno Bokk Yaakaar xamaguñu kuy nekk seen candidat wante lépp liy xeeñ dafay wone ni président Macky Sall dafa bëgg a nekk euh, candidat encore pour pour 2024 loolu lan moo siy seen position parti si si coowu ñetteel mandat bi nga xam ne tiital na déjà ñu bëri ndax société civile bi tàmbali nañoo yëglu ak ñeneen ak ñeneen. waaw di nga dégg di nga dégg keneen sax même bu même même bu ñu waxoon sax Macky Sall du candidat di nga déggaat société civile di nga déggaat keneen donc ça c'est la politique comme ça mais. euh, logique pour logique moi personnellement je peux vous dire euh, pour wax na Macky Sall am na droit ou amul droit légalement intellectuels yi yëpp juristes yi yëpp constitutionnalistes yi yëpp ñun ñi ñëpp nekk ci langue politique depuis lors avant même 2012 tout ça xam nañu ni ah, am na droit présenté en 2024 loolu savons tous waaw hmm. ah, léegi on parle je parle de légalité maintenant dina ko def du ko def loolu moom mbiram la ba moom bu ko décidé. tax nga ne am na si droit te constitution bi ne kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yi toppante. waaw constitution boobu laa lay wax nag bu leen fàttali ñun 2016. ñu ngi woon PDS dañoo a deux éléments qui sont extrêmement importants yoo nga ko rappeler. ñun ba ñuy dem lan la ñu waxoon Sénégalais yi boobu ñu ngi woon coalition Gorcha wax ja ñu ni Sénégalais yi constitution bi amul disposition transitoire bu ngeen ko voté bu fekkee Macky Sall gagné na 2019. légalement day doon candidat en 2024 Sénégal yëpp dégg nañ ko professeur Babacar Gueye waxoon na ko euh, waa kii ñoom xalifa yi yaa xalifa yi waxoon nañ ko réew mi waxoon na ko maanaam tous les partis politiques l'avaient dit tous les hommes politiques l'avaient dit à l'époque ainsi, ainsi que le mais Sénégal yi dem voté constitution à plus de 60 pour cent donc la décision populaire est déjà prise maintenant la légalité boo demee si leneen nga ni conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel wax na lu muy wax yàgg na ñun ñëpp xam nañu papier parce que on lire nañu décision bi conseil constitutionnel nee na le mandat 2012 2000 2019 ne saurait être pris en compte par la nouvelle constitution de 2016 si il est voté par les sénégalais loolu kay leer na donc bu ñu bu constitution di wax waxu deux mandats c' est dans l' avenir mais ça peut pas être rétroactif ça c' est très clair en tout cas. mandat ba weesu bokk si. mais mënu ci moom bokk ci par principe bokk ci. maintenant nag danoo ko def ak du ko def loolu. décision président Macky Sall la. Et, tout, et sous Boba, euh, voilà, on va, bon, je pense qu'on va, qu'on va, qu quand même, l'accompagner sur ça aussi. Mais quand même, décision là, et on attend de voir comment il va, il va, il va décider. Mais aussi, Boulen Fatine, par exemple, je suis du PLS, Mais en 2012, on a soutenu la candidature de, de C'était le même cas de figure. moo tax quand bu ma bu may su ma rombee mes mes frères libéraux dama naan eh, mais les gars là eh il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes si c'est le même cas de figure non il faut qu'on soit réaliste. d'accord et puis on avait tous euh, bu ñu bi affaire yi passé ñëpp d'accord nañu ni Ablaye Wade amoon na droit nekk candidat. c'est la même chose donc parlons de l'égalité maintenant la possibilité de le faire ou pas ça ça appartient au président. Macky Sall. d'accord kon daal leer na ni yéen Macky Sall buy dem probablement di ngeen ko euh, gunge si si coowu troisième mandat bi. Euh, loolu nag congrès moo koy décidé mais ni nga waxee ni wane na ni moom contre leen. mais logique pour logique xam bu doon nekk bu doon nekk ci benn coalition ça c'est ma xalaatu bopp la. nga nekk ci coalition ngeen ànd ainsi de suite jusqu'à ainsi de principe de solidarité da ngeen ànd. pourtant ñi ngi ragal loolu yëngal réew mi. loolu lan yëngal réew mi. waaw troisième mandat bi li xewoon 2011 coow li ne fi kur jàppal bàyyil lacrymogène yeeg jàpp yeeg kenn xamul bakkan yu bari mën naa doon ndax réew mi moom léegi. ma ne soxna si. Mm. li ci am solo. mooy askaru Sénégal ñoom ñooy décider à la fin. 2011 mm. coow la la muy bari jóge ki daanu homme politique yi di manipuler mos ngeen dégg ngeen fi benn homme politique opposition mu ne ñun xamoon na ne Ablaye Wade am na droit def candidat en 2012 mais dañ ko ci tabaxal. waaye nag sénégalais itam bu nu nëxasalee seen xele ba ñu cabaxal ko si ñoom ñu dem di reyandi si mbedd ñoom ñoo tooñ seen bopp de parce que à la à la fin peuple bi mooy décider à travers une élection comme en 2012 comme en 2019 que ça sera la même chose en 2024 donc man li ma intéresse mooy légalité bi bis lépp lu ñuy def acte politique booy déposé na doon lu légal maintenant loolu nga bëgg ak bëggoo ko moralité ak ainsi de suite voilà ça ça dépend quand même de la de l'appréciation personnelle euh, des uns et des autres mais tant que c'est légal laissons le peuple décider mhm. à la fin parce que le peuple est souverain et au-dessus de tout. D'accord. alors ñu wax ci seen euh, parti bi da ngeen di amal conférence nationale ëllëg lan mooy jubluwaay bi ak lan lan lan ngeen seen nar a waxtaanee. waaw xam nga loolu sax moo ma gën a intéressé yi ngeen doon aborder. <laughs> waaye <laughs> dafa am lu parti bi parti libéro libéraux et démocrates ànd suqali dañ ko créé mi 2020 dañ ko créé ensuite par la suite bon Covid du dugg si vraiment ça nous a empêché de bouger mais quand on s'est xeex nañu daal dem ci territoire national bi à gauche à droite ba déployer parti bi partout loolu moo ñu permettre ñu participer aux élections territoriales ba am ci ay résultats kam yi nga xamante ne vraiment yu mucc ayib yu honorable franchement et ñu ñëw participer ci élection législative yi après nag ñaari at yooyu ñu dund Euh, euh, war na quand ñu taxaw seetlu. gën a saytuwaat parti bi gën ko organiser gën ko déployer au niveau national parce que gis nañu benn force de frappe bu PLD am ba xam ni mi ngi mi ngi sonnale loolu la ñu bëgg gën a ko yee. gën a mën a defaraat suñu toogaay pour enjeux yi ñëw yi suñu kanam ñu ne ñu gën si mën a wane suñu suñu bopp quand même dans l' intérêt du Sénégal. c'est ça PLD lan la indi lu bees ci langue politique bi parce que parti yi ñu ngi gën di bëri li ngeen di def peut-être ñeneen defoon nañ ko mais lan ngeen nar a indi lu bees pour sénégalais yi fan ngeen nar a defee différence wala ngeen ñëw rek nekk parti comme yeneen parti yi. non xam nga PLD nag la mooy euh, peut-être que dooni sax lu bees ah c'est juste que quand même quand ñun ñu bokk même xalaat ci doxalin bi parce que nous on est des. Euh, des, des, des libéraux, il y aussi des, des, des hommes de gauche. Comme on s'est, on s'est, on s'est alliés pour créer le parti là, quand pour quand même préserver ce la bonne marche quand même des choses. Ça, lors de bon, depuis l'indépendance, parti politique ñu koy def au fur et génération yi changer di avancer ainsi de suite bon bu ñu desee bu groupe de personnes mën a antam pour mën a créer loolu pour di am wax ak sénégalais yi mais dañuy créer parti politique y a pas de problème ça c'est dans l'ordre normal des choses donc euh, voilà donc euh, moi mu ngi noonu quoi donc euh, <laughs> alors seen seen nekkin si biir Benno Bokk Yaakaar ba am na ñoo xam dañu frustré nee nañu gisuñu seen bopp ci coalition bi xëy na président fam ñeen ñu muy waxal ñi ci des moom compté wuñu déggoo nañu sax Benno d'en haut Benno d'en bas est-ce que PLD mi ngi gis boppam ci biir Benno Bokk Yaakaar. bon ce sera une question quand même qui est plus ou moins difficile à répondre mais quand wax dëgg yàlla coalition yombul. man des fois sax damay yërëm président Macky Sall. Hmm. voilà ba ma ko yërëm sa war a satisfaire ñëpp. voilà c' pas facile sa position. moo tax des fois j' en appelle quand même à nos alliés Bokk Yaakaar ñun suñu suñu parti ñun li ñu gën a intéressé c' est le Sénégal d' abord réew mi. ah ñëpp la ñuy wax loolu la ñuy wax mais ku ñu servirul nga mer. ah bon ñun ne bokkuñu ci bopp. Hmm. ñun daal tey tànk yaa ngi yoruñu Sénégal mi ngi jub. Hmm. di baax ak enjeux yu ñuy séen yi ak danger yu ñu wëri tant que mi ngi baax ñun dinañ jàpp ci loolu fekkante ne tamit yaa ngi prendre en compte nos idées et nos aspirations par rapport quand même à l'avenir de ce pays il y de la nag ku ku nekk bëgg nga bëgg la la la pâte ainsi de suite ça c'est ça c'est mais quand même loolu warul tax ñu mën di ko mettre au-dessus de l'intérêt suprême quand même de la nation sénégalaise raison pour laquelle nous au PLD on ne résigne pas sur ce genre de choses mais quand même ce serait bien vraiment bon ce serait bien qu'on qu'on qu'on implique mieux le PLD dans dans Benno Bokk Yaakaar Euh, bien que c'est pas mal pour le moment mais quand même bu ñu ko gën a impliqué mu gën a baax. war na gën a mun a neex daal. voilà war na gën a mun a neex mais quand même qu'on sache que c'est le Sénégal d'abord. Hmm. kon loolu warul nekk une une condition. loolu nekk une condition donc loolu dafa neex rek ñun ñëpp ñu àndandoo doon do benn et que ñu ñu privilégier le Sénégal et le principe de solidarité dans l'intérêt du peuple sénégalais. alors ay retrouvailles ñu ngi koy wax boobu ak léegi yàgg na euh, pour njabootu euh, famille libérale bi yëpp waat PLD euh, pare ngeen pour dem fekk ji ñeneen ñi les président Ablaye Wade Karim Wade ak ñeneen ak ñeneen pour juboowaat àndaat nekkaat mburoog soow nekk benn. Ah, waaw waaw. ñoo bokk bokk euh, ñoom ñoom bokk bàyyi tey wala bokk seen bàyyi boobu ñun suñu maam la. Abdoulaye Wade je vous rappelle que pratiquement la majeure partie d'entre nous on est au PLD mais on est tous des wadistes wadistes wadistes c'est une idéologie on l'est voilà jusqu'aux os d'ailleurs mais et c'est vrai que bon bien y a un parti qui est là-bas mais il y a l'idéologie wadiste on l'est tout comme le président Macky Sall l'est voilà tout comme Idriss Seck l'est, tout comme Omar le l'est, tout comme euh, Modou Diagne Fada ainsi de suite mais quand même ñëpp toog waxtaan ànd pour intérêt Sénégal mais on est tous daal ku ko ku ko war a mën a bañ gisuma ko war a mën a bañ je pense que loolu sax dana doon lu baax pour intérêt Sénégal parce que jàpp naa ni euh, maître Wade njabootam bu ñu dajaloo woon te instant yi kenn ci doomam yi moo nekk di jiite réew mi eh ñu jàpp ci. est-ce que mun na nekk retrouvailles yooyu mun na nekk. ah bon xaw ma ndax mën na nekk wala mënul nekk waaye daal suy la rek. Hmm. xëy na peut être ñoom dinañ ko dox waaye suy la bu doon suñu sago rek mu am ñun ñi nga xamante ni peut la suñu su référence politique la bu doon ci moom ñu ànd te ba léegi xam ni. Hmm. tamit c'est un Wadiste qui dirige ce pays. Hmm. en l'occurrence euh, Macky Sall qui fut quand premier ministre son directeur de campagne voilà le secrétaire général le, le numéro 2 de son parti ainsi suite a de, suite voilà et nous aussi on était des militants et responsables je me rappelle bien on l'a en ba muy ñëw def tournée boobu noonu il était le premier ministre et numéro 2 de notre parti donc c'est toujours la famille voilà se retrouver alors pour l'intérêt du Sénégal je suis preneur d'accord jërëjëf Abdoulaye Ba Nguer amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaa ngi bokk ci directoire bu PLD muy parti des libéraux et démocrates euh, Oumar Sarr jiite ko waaw jërëjëf Fatou maa ngi lay sant et puis di di di nuyu sa auditeurs yi bu dee kaddu yi dafa am lu si juumit ndax ngeen baal ma ndaxte wax dafa dafa dafa jafe daal dafa metti te jafe daal daanaka daal te ay nit la noonu rek te nul ne vraiment infaillible daal ah maa ngi jégalu te di leen nuyu di leen ziar yàlla dafa leen jàmm